door ah, simlaay maa ngi door eh, di remercier eh, ñëpp di gannaaw bu ñu sante yàlla nag julli si yonantam bu tedd bi eh, vraiment ñu ngi remercier monde lutte bi yëpp profiter si ocasion bi nag jéem a profiter si occasion bi pour présenter suñu condoléances au famille de Ousmane Tanor ak Ousmane euh, ak euh, Ahmed Amar ndax nekk nañ ñoo xam ne ñi vraiment c'est des sportifs yoo xam ne yi ñëpp leen xam euh, donc premier point bi dañu am constat bu ñu def mu nekk pour ñun ay détails liés au combat de Modou Lo Eumeu Sène Parce qu'après le, combat, après le, le combat, on a eu à constater, à travers la presse, euh, beaucoup de sorties yoo xam ne vraiment vraiment milité wul te du ay information yoo xam ne information yu baax la yoo xam ne war nañ ko baaxee les amateurs ak sportifs yi en général mu doon loo xam ne li presque genre discrédit la ci vraiment Euh, le nouveau roi des arènes muy Modou Lo euh, donc question bi nga xam ni moom la ñuy posé wu mooy Modou euh, depuis dimanche nekkul le premier roi des arènes je crois savoir que Modou mooy septième roi des arènes ci période bi ñu toll et avec le meilleur comment dirais-je le meilleur palmarès si ñi nga xam ne ñi nekk nañ ci roi des arènes yëpp je pense que dinaa décliner les raisons yi tax je les di donc actuellement euh, Yékini bi nga xam ne bii durée d'invincibilité je pense que kenn du ko contester ci roi des arènes Yékini dix-neuf victoires la am je pense que damay dugg dans les yëkk ni dix-neuf victoires la am je pense que yéen a ngi ak seen machines yi yéen a ngi ak seen calculettes yi benn nul ak deux défaites je pense que ça c'est clair Bombardier bi nga xam ne bii moo ñëwaat Bombardier dix-huit victoires la am ak huit défaites je pense que loolu aussi kenn du ko contesté Balla Gaye am na vingt et une victoire mais am na quatre défaites te quatre défaites yépp ñeenti lutteurs ñoo ko daal ñetti lutteurs plus parce que ëmb daan na ko ñaari yoon et puis ak deux défaites tamit bon Tyson onze victoires la am ñu fi jaar roi des arènes laay cité donc onze victoires la am ak six défaites bon Eumeu Sène bi ñu doon roi des bi ñu doon oowee roi des arènes avant avant Modou dix victoires la am deux nuls ak sept défaites donc am na ñu ñuy wax ay VIP man naa gis ñoom muy Lac de Guerre 2 treize victoires la am deux nuls deux défaites ak benn sans verdict bon bu ñu ñëwee ci Gris Bordeaux parce que on parle des VIP mais ñooñu mosuñu sax nekk roi des arènes je pense que mën naa ci bañ a wu mais mën naa leen wax rek parce que 12 victoires la am 9 défaites Ama Baldé bi ñuy wax naan mu ngi bëgg a dugg si te ak seewul 13 victoires la am 2 défaites Tapha Tine 13 la am cinq défaites tenez-vous bien bu ñu defee ay statistiques mais Modou 20 victoires la am. ci carrière bu gàtt bi période bi mu commencé ak période bi ñu toll te te ne am na ñoo xam ne ñi tey lim naa leen mais actuellement ils sont à la retraite du à vingt victoires trois défaites ci deux lutteurs parce que Balla Gaye def ko daan deux fois ak benn nu ak te nul bi xam ngeen nu mu demee donc je pense que actuellement bu ñuy def. ay statistiques kenn gënu ko mérité roi des arènes ci période bi ñu toll nii si on voit que à travers la presse ñuy génne ay déclaration di wax par exemple euh, un Yahya Dial peut être roi des arènes ça c'est pas sérieux ça c'est vraiment pas sérieux parce que Modou dafa reyante pour nekk roi des arènes c'est pas un hasard que Modou nekk roi des arènes parce que tout le monde sait qu'actuellement Modou vraiment il fait partie des meilleurs rois des arènes à travers son palmarès donc tey j'ai même entendu dire que le président du CNG a dit que roi des arènes euh, gagner benn combat nekk roi des arènes c'est pas ça Mais ça, c'est une, une déclaration qui date de sept ans, au moins. Quel de nous mettre en mal avec le CNG Parce que nous qui fait déclaration, il sait que du déclaration, boo xam c'est une déclaration récente. L'histoire et là. Tout le monde sait que, mu que Alun Sar wax affaire boobu euh, amoon na ci sax un problème ak un lutteur c'est pas la peine de citer des noms mais tout le mone sait que déclaration boo xam ne bi ça fait plus de sept ans peut-être am na waxaat na ko ça fait trois ans quatre ans mais combat bi Alioune Sarr n'a même pas fait de déclaration donc mënuñu jël rapport boobu di ko indi ci roi des arènes bu bees bi ce qui fait que ñun vraiment on est un peu vraiment déçu d'entendre certains trucs dafa mel ni ndëkk roi des arènes nu Modou dafa am ñu mu gêné mais ñun loolu vraiment am na benn France boo xam ne bii gêné leen te amuñu benn région objectif boo xam ne bii war nañ ko mën a wax pour wax ne moodu nii wala Modou naa parce que même classement FIFA je pense bu ñu koy def si performance yi la ñu xool et je pense que tey bu CNG doon reprendre les trucs def des moo du lay jox roi des arènes même bu daanul Eumeu parce que ça je pense pour man à mon avis à mon humble avis que vraiment bu ñuy xool tey yaa ngi dégg euh, Modou parcours am ak performance am je pense que il fait partie des meilleurs rois des arènes bi nga xam ne bii tey actuellement moom làmb ji di vivre je pense que vous êtes tous des journalistes sportifs am ngeen statistiques yi ma leen di wax je sais que yéen a ma ko gën a xam mais il faut que ñu juger lu nekk ak mu doon donc période bi ñu toll euh, dafa dafa war a euh, dafa war a euh, dañ toll ci vraiment leeral à tout le monde ñun ndëkk on en veut à personne ku nekk tu es libre nga def sa analyse ku nekk am nga droit wax lu la neex mais ce qui est constant mooy que le vrai roi des arènes actuellement c'est Modou vu période bi mu def ci làmb ji vu nombre de combats yi mu am vu ay victoire am je pense que amul kenn koo xam ne kii ëppale nga ko ay victoire ou bien boo kenn moo ko fi ëppale benn victoire muy Balla Gaye te Balla Gaye quatre défaites la am donc je pense que tey bu ñu doon xoolaat affaire yi je pense que bu ñu doon def classement wu lutteurs yi Modou Lo mooy nekk kenn mënu ko jël de premier bu fekkee ne rek dañuy doxal dëgg rek. donc loolu moo tax tey je me suis permis de vous appeler pour ñu def ay clarification cité wu ma kenn tontu ma kenn dëgg mais dañu bëgg leeral li nga xam ne lii moo am parce que vous êtes des journalistes vous êtes appelés à communiquer. donc yaakaar naa ne bu ngeen defee seen statistique je pense que am naa journal bu ko gis vraiment dañuy assurer ne ça c'est le vrai roi des arènes kenn mënu ko contester donc euh, lenn rek moo ñu si kii aujourd'hui tey dañu sant yàlla bu baax a baax sant yàlla en ce sens que Modou ça fait presque neuf à dix ans dafa promettroon waa parcelle indi leen roi des arènes ñun ñi koy accompagner mu promettre ñun dinañu indil roi des arènes ñu sant yàlla bu baax a baax a baax nag du mu ñu ko indilee jox nañu ko vraiment euh, xam naa ne nag ñun comprendre nañ ne roi des arènes Modou am nañu mu seene mais ça amul importance du loo xam ne lii ñun dañ ciy taxaw je l'ai toujours di et je le répète Modou palmarès am amul benn lutteur tey boo xam ne bii di nga ko revendiquer fii ci Sénégal amul mënu la ne bu fekkee nekk na vraiment ñu leeral moom seen CNG nag am nañu droit depuis ça c'était en 2012 je pense si je me rappelle bien cette déclaration de Alioune Sarr 2012 la woon waxaat na ko en 2015 mais combat bi il n'en a même pas parlé bi. Euh, euh, Eumeu seen nekkee roi des arènes il n'en a pas parlé ak keneen ak keneen mais si des journalistes se permettent di ñëwaat mu mel ni dañu am un lobby boo xam ne bi dañ ko bëgg a teg pour décré décrédibiliser di mais ça mais ne peut pas passer c'est c'est ça la réalité donc loolu moo tax ma woo leen en conférence de presse pour ñu leeral affaire boobu il faut retenir que Modou c'est le vrai vrai roi des arènes vu son palmarès vu le nombre d'années qu'il a fait rayante bi mu rayante tout ce qu'il a fait pour décrocher ce titre vraiment bu ñu ko remercier wul bu ñu ko kiiwul vraiment bu ñu ko félicité wul waruñu toog ci presse bi di décrire aller jusqu'à dire que vraiment Yawou Dial peut être roi des arènes ça c'est pas sérieux comme déclaration parce que kii pakastalowul pour nekk roi des arènes de haute lutte la ko décroché te tout le monde sait que ko mérité te ñiy wax yépp ñu ngi dégg les réactions yi nga xam ne yi tey les internautes ñu ngi koy def pour diir que y a des yi nga xam ne yi vraiment bokkul ci lutte Modou euh, rayante na am na ko nañ ko féliciter je pense que loolu mooy rôle nit ñi mooy rôle presse bi mooy rôle sportif yi parce que nit da ngay sportif tuuti vraiment meew kenn dëkk parce que euh, olof day wax ne ku xaj ku ku ku naka ku ku voilà loolu mooy li nga xam ne li mooy li am dañuy sante yàlla nag bu baax a baax dolli sante yàlla bu baax a baax di leen remercier yéen ñi nga xam ne ñi tey vraiment ñëw ngeen tey pour jël suñu déclaration bi te vraiment làmb rek di seen métier euh, vraiment ñu ngi leen di remercier bu baax loolu daal mooy li nga xam ne li tey mooy woon objet wu conférence de presse bi pour le reste nag si vous avez des questions je suis à entière disposition. ci li nga wax si comparaison bi ak période bi ñu ko war a defee ça c'est vrai je suis entièrement d'accord mais même avec ça moo période bi nga xam ne bi si lay jëlee roi des arènes hmm, ñoom période bu ñu koy jëlee performance su Modou moo gën a baax. moo gën a baax ñu effectivement loolu la l'avait déjà fait mais situation bi actuellement actuelle parce que Modou bi muy nekk roi des arènes amul benn lutteur boo xam ne bii période bi ngay jël roi des arènes am nga performance boobu c'est ce qui fait que c'est ce que nous fait dire c'est-à-dire ça c'est de manière ramassée rek pour dire exactement ku ne fan nga toll actuellement parce que ñenn ñi déjà dem nañ à la retraite mais ñoom période avant ñuy dem retraite période bi ñuy nekk roi des arènes amuñu woon nombre de victoire yi Modou am ce qui fait tey loolu moo indi vraiment ñu wax ne c'est ça. alhamdulilah donc man jërëjëf li taxoon ma ne may laajte ndax da de mhm. en fait fii Dembélé waxee foofu laaj la mën a te yow da nga def bon comparaison fii Modou Lo toll tey en merci bu mujj bi laay euh, démarrer Euh, Ama nekk nekkagul si euh, Ama Baldé nekkagul si plan wu Modou parce que accégul si Modou Lo d'abord donc je pense ça c'est clair depuis daaw wax nañ leen ko Ama àggagul ci Modou Lo mu ngi force nag parce que bëgg na bëri ak Modou Lo coûte pour le moment nii mënagul a bëri ak Modou Lo Modou Lo jëlul combat wu Ama Baldé pour le moment pour que ñu clore ce débat ku nekk nag am nga droit ne dama soxla Modou parce que ñun on sait tey en tant que roi des arènes ku nekk ambition tey mooy bëre ak Modou Lo ça c'est clair te loolu mënuñu ko bañ mais Ama na xaar na continuer liggéeyam ba accès si Modou bu boobaa Modou Lo ko jël bañuñu ko bëre bëruñu bëreeg moom nag parce que ñu ala kuli al Modou Lo moom dina bëreeg Ama moom tànk ñu si arène ndax ay morom lañu ay nawle lañu te Ama aussi kenn mënu ko bañ si làmb mais nag làmb dafa am si boo xam ne bii dañ koy respecté ñu ci tolloo dina ko may chance pour mu bëri ak moom mais pas pour le moment beneen question bi. Mhm. plan wu Modou euh, euh, je pense que euh, actuellement période bi ñu toll nii plan wu Modou mën nañu ko dévoiler pourquoi parce que déjà dafa amoon plan de carrière bu ñu ko tegaloon ça on l'a toujours di même quelquefois maa ngi dégg sax ñu naan dañuy dañuy jël ay contrat noonu pour am xaalis dégg naa ko ñu koy wax mais loolu intéressé wuñu tout le monde sait que il fait partie des lutteurs yi gën a professionnel ci làmb ji parce que ñun dañu nekk ak moom xam ni ñuy liggéey ak moom depuis le début gis ngeen ne toujours bu ñuy jël automatiquement dañuy jël combat benn combat rek lañ jël par défaut mooy contre Balla Gaye parce booba Balla Gaye n'était même pas notre adversaire mais pour éviter année blanche bi il fallait que ñu jël ko parce que aussi ñoom làmb mooy seen liggéey il fallait que ñu jël ko mais ñun suñu cible c'était Eumeu Sène vous avez vu que aussitôt après Balla on a signé Eumeu parce que ñun moom moom mooy plan bi nga xam ne moom lañ ko tagaloo donc nit ki buñ ko tagalee plan mu dem ba nekk nag vraiment attendre objectif bi nga xam ne bi moom lañ ko assigné woon léegi li des mooy re toogaat nag xool exactement parce que tey ñun mënuñu aventuré wu ne diw la ñuy jël diw la ñuy jël parce que ñëpp ay mbër lañu Modou Lo war na mbëri ak kenn ku ne tey ku nekk ci arène bi koo xam ne kii tolloo nga ak moom donc mais actuellement je ne peux pas de vous dire diw mu ngi ci plan kële mu ngi ci plan fi mu ne nii dañ toll si vraiment noppalu parce que benn année bi nga bëri si ñaari combat jóge ci Gris Bordeaux dem ci lag de Guiers jóge ci Lac de Guiers dem ci kii bon vraiment je pense que dafa tollu ci noppalu toog nag à tête reposée mu xool ak staffam hmm, ak ay techniciens ñu xool exactement fan la ñu war a mën a orienter je pense que pour le moment waa pour le tournoi mais Modou amul lu muy bañ ci làmb Modou amul lu muy bañ ci làmb CNG moo jiite làmb bu fekkee dafa am lu moo xam ne bi daf ko décider on est obligé de l' accepter ñun ñooy actuellement roi des arènes bu ñu demee ba ne dañuy xoolaat titre de roi des arènes bi nan lañ koy doxalee par des tournois ou bien tout ça mais on va accepter ñun exclure ñu benn mbër pour bëre ak moom euh, exclure ñu benn mbër bu bokkee ci. kii bi tournoi bi Ama c'est sûr que du ci bokk je pense bu ci bokkee boobaa kay on est bu ñu ko tirage joxee ñu ba rek moom loolu koy kenn wax ko. mais Ama ñu yeneen VIP na ak ñoom ce que bu ñu na ak ñoom ba dépassé leen. non maanaam yoo bëri woon na ak ñoom ba dépassé leen il faut mu leer parce que dafa am xam nga euh, il faut que ñu nangu. ne làmb dafa am hiérarchie dafa am ku nekk fi nga toll niveau bi nga toll waaw parce que Gris Bordeaux dafa jóge ci ay défaite ñu koy dox kombaam ak Ama mais c'est normal c'est logique mais Modou tey jógewul ci défaite dafa jël titre roi des arènes yaa ngi dégg dafa am ñoo xam ni ñoom la war a mën mais bés bu CNG d'accord defee ne day def kii kay mais kooku on est bu ci dugalee yaawu jaal sax ñu bëre ak moom